Paolaga la velo carbaquero Tamo coro pa que yo morjo Paolaga la velo carbaquero Thank you.

Amado. Hey.

waaw loolu lan moo ko waral mën nañu ko wax ci séeréer loolu de gaagaale yel aada mhm. moom gaagaale yel aada aada séeréer mhm. afi ingaan jaajom ka jiga xel gën a manqué ante no gaagaale ki te fi watni afi e salaamaaleykum maaleykum salaam ñu lay nuyu bu baax mhm. eh, di di rafetlu seen déplacement bi ñaanal bu fa nak bu yam ko la tam suñu xarit la suñu mbokk la ana la nekk bu baax aussi ko xamantene locataire yi ni tambit ni baax baax baax yag nañ nak depuis l'enfance sama xarit la bu ay tout tank la ba tay wax deug fa yalla ñoom di wéyal lolu diko dundal

parce que lii vraiment moom la ñuy ñëpp euh, ñëpp loolu la ñuy ñaan euh, amuñu leneen lu dul ñaanal ko di rafetlu bés nekk suñu xarit presque mën naa ne ñoo foowandoo defandoo leen duggandoo euh, leen ba yàlla def xam ñu dugalal ba génn yàlla may ko soxna mu am doom tey kon mooy ñu ñëw bokk moom bés bi. mais vraiment contente bu rëy lañu ci am yéen tamit vraiment ñu ngi leen di. ñu ngi leen di gërëm bu baax baax seen teewaay gis nañ ko ñu ngi koy rafetlu vraiment kontaan nañ bu baax a baax. Gimdama goro Dominic, gimdama nik, pa garbageno.

Gimda matoro ba gimbya domini ba molana latero garbageno. Gimda matoro ba gimbya domini ba molana latero garbageno. Estamos coroba, limpiando Malik, va volando el acero, carpaquero. Mako don dale de la ila ila la ko kre baro ran ding la. Estamos coroba, limpiando Malik. Paolana la pelo, carpaquero. Kimdama koroba, kimyodomale. Paolana la pelo, carpaquero. Huh? geen win door door rek geen win

Vai lá, Lugar, vamos lá. Gimda Makoro Ba, Gimbia Dominic, Ba Honana Lazero, Garbageno. Bonjour à tous. Euh, une fois de plus, euh, le groupe Maxer est de retour à Diaganiaus, non pas cette fois-ci pour un séminaire de formation ou une campagne de solidarité, mais pour venir soutenir euh, un membre du groupe, à savoir M. Latiendour, qui fait le baptême de son fils aujourd'hui. Donc, au nom du groupe Maxer, au nom de son directeur général dont j'ai l'infime honneur de représenter. Nous venons ici pour féliciter M. Latindour pour cet heureux événement. Bien entendu, M. Latindour, personnellement, je l'ai connu au détour d'une campagne. Et euh, la collaboration que nous avons eue avec lui, car il a fait partie de l'équipe que j'ai euh, dirigée pendant la campagne de solidarité, n'a fait que laisser des impressions positives au sein du groupe. Et donc, il était normal que nous venions aujourd'hui euh, le soutenir aussi. Et quand je dis nous venons, nous venons ici pour le soutenir, j'ai été accompagné par M. Salu, excusez-moi, donc euh, pour représenter le groupe Maxer, étant donné que son directeur général a eu un empêchement indépendant de sa volonté. La tire Nour, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Ben, c'est la simplicité dans la compétence professionnellement parlant. Et ça, c'est une leçon qu'il m'a donnée durant le laps de temps que nous avons collaboré ensemble et la création de ce lien qui fait que Maxer s'agrandit, c'est une famille de plus. Donc il était inconcevable que Maxer ne soit pas présent ici à Diaganiao pour cette cérémonie. Euh, au nom du DG de Maxer, je tiens à vous présenter toutes nos félicitations pour Sérine Cher. Cette journée est la sienne et nous ne cessons de formuler des prières pour sa venue sur la terre des hommes. Que le bon Dieu le garde sous son aile, lui accorde bénédiction, bonté et grâce tout le long de son existence ici sur terre. Voilà le message que je tenais à délivrer au nom du groupe Maxer, Cœur Bamba. Merci. Pour hay heƴa in seh ñeɗga tahay taxawre for ino wawi ten reɗang me waga moƴo développé e gen andono gaga liye gaga moƴo liye ino parce que ndefa duré nen andona xeƴa mbaga lembo mais way vì ñowa gen phải wiina ndefa ñeen fukk at seh so ñowerno par solidarité dëgg gena lembel solidarité dëgg te ref gen fokat yee te ino parce que a euh, mboga liggéey njag ñaaw liggéey men andoona refee njag ñaaw kiin o wa bafit men andoona xëƴ maaga ref lieu ten a men andoona peut être moseer mbadma sax waaye roog fokata in rek euh, ba liggéey na mos trop ba rembatit rembatit na ma daal xaref na ko ge xooxof carrément donc ten carrément spécialement fogan gen waralna gaga par que dekloxongan mbaga lemba te piloter ligi in fop bo gaga fop jeg te donc kon élément in nen andona wax dëgg mbegir na mo xaƴa a ñanan rek fop gen andona gaga ta naal no roog fadnin maaga so comme nem lemit ma no commencement ne xëy andona te ref Serigne Cheikh euh, roog moƴo euh, fi'inin wërsek nen andona naga a soxla yon teno comme kilifa itine te tamit Euh, so kilifa nen andona tamit xaref na an xaref na an ɗan me donc ba ndiki se xaref na ge euh, chemin gen andona liggi nen andon te taxay me fo digle gen andon te taxay me yasam roog euh, refnooru turandoo nen ten digle ga joka fop vraiment laya tamitam déplacement ne e xena i ngidma nuun a paax i nge'a wax deg c'est engagement ne waref natin tahna ten déplacer o angaro bo men ina mbogo fo une journée nen hane ngada nayo rek xaraf na njajong juduh na hane hamin suñu borom afiin kilifa afiin okin diine afiin terafu njirign adna fop a ñaka dey sax no njirign in wo na faapum euh, fo bab bab makum fo bab tebum hamin terafu njirign sénégal fop joka njal fop vraiment latir mom témoignage ne mbina ne ten ngas ne tem lay kat no tena Vraiment, c'est un ami, quelqu'un vraiment qui est euh, confidentiel. Euh, il est vraiment sérieux et on peut dire que c'est un ami vraiment adorable, sincèrement. donc euh, comme nous sommes séeréer rek nem le waag na na leyit laatira ref a kiin oxe yar a jeg neno kendum to xee fe o leŋ de roog a fokatinana rek a waaga donc kon in latir mbegte in no in fop wax deg mbegti ino xamin dal suñu borom at seytu hin a dimle in ni geta bug xamin no geen taraf na taxati ta ndam jërëjëf asalaamaaleykum euh, je tenais à remercier tout le personnel du groupe Maxer Kerbamba en commençant par le DG Alun John et Monsieur Samba qui est notre responsable technique et euh, aussi, euh, Latir étant comme le coordinateur du groupe Maxel euh, Kurbamba. aujourd'hui, je tenais à remercier vraiment toute l'équipe, sans exception, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, parce que je sais qu'ils ont compati et je vois aussi vraiment leur engagement et leur détermination. Comme ils l'ont dit, durant tout le travail qu'on a effectué ensemble, vraiment je vois en eux aussi leur amour, leur fidélité et leur engagement ce qui a abouti aujourd'hui, cette journée. Et je dis, je n'ai pas les mots à les remercier 100%, mais je dis que je prie et je reste à prier pour eux, pour que le bon Dieu leur puisse accorder ce qu'ils ont besoin. Et E hum, lewg nasere euh, rek kam bugiɗo semin de wenan ɗo node nde de mi xarit wen fogit de calel surtout daal wax dëgg si yàlla gidma den fop joka den a ngem xane wax dëgg si yàlla a ref journée na andoona yee a jeg me andoona daal wax dëgg si yàlla euh, a fad xam maaga bo ta taxna waagiim euh, ñak euh, remercier waaga fop waaw o teeyna tout fo o teey weerna yo wax dëgg si yàlla ngem aussi o kiinox wa ñaka teew rek xel teen a ma mais wax dëgg si yàlla maxey gidma fop joka fop njal